donc euh, des fa football franchement ñing koy gis bu baax baax mi def ay prestations yu am solo donc euh, performance yooyu nak donc ñing koy gis euh, donc di xam que ne Sadio Mané ba légui ni dese na ngir wara mëna démat a ci Europe jouer football ndax lu mëna a nekk la am déet donc pour man waaw parce que gis naa que ne physiquement mentalement donc yëpp Sadio Mané mm, mi ngi ci mom ba légui donc le fait que. mu nekk ci loolu également mu nekk ci niveau de performance bi mu nekk je pense war naa mën a nekk mais ay Barça ay yooyu yëpp war nañ ko mën a jënd donc.